asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu jug ngir waxtaan tey lu néew ci xew-xewi réew mi ku ne xam na ne réew mi fan yi yëpp ñu ngi ci ay jafe-jafe ci li ko waral mooy li xew muy diggante e, mbirum Ousmane Sonko mi ak Adji Sarr muy mbir moo xam ne jëruta sobantal jëruta xeeb ndax man naa taal am réew te ñax gu wow takk na taalaale gu tooy réew mi li may euh, vidéo bii vidéo boo xam ne dañ koy def mu doon ay laabiire jëm ci njiitul réew mi Macky Sall di ko xamal ne réew mi fii ñu toll maanaam lii di xew moom moo waxat wax ju am solo ne bëri na ka lu xew loo xam ne bu ci tegul loxoom rawatina sax ay dossier judiciaire yoo xam ne bu ci tegoon bu ci tegutoon loxoom réew mën naa taal réew mi waaye dossier bii def cee bokk ndax juste dossier bii mboolem sénégalais yi ci nekk yi ko déglu yi xool li fi de xam nañ ne li ci nekk dalatum xel PV yi ci nekk ak yépp dafa teg wone ne ab adversaire politique képp lañ bëgg a éliminer niñ ko defoon ci Karim Wade defee ko ci xalifa Sall loolu moom lañu narati ci Sonko mii su ko defee nag Macky Sall li nga xam ne moom la war a njëkk xam ñu ko koy labiré mooy dafa ñëw ci réew moo xam ne muy Sénégal li muy ñàkk-ñàkk teg na fi loo xam ne nit ñi mën nañ cee dunde mu ñëw fi moom juddoo ci njaboot goo xam ne yàlla dogal meluñu nañ war a mel ci wàllu alal waaye réew mi uuf ko école yi nekk fi doon gratuite mu ci jànge dégg nga ñu koy taxaw di ko tette ni ñuy tette mboolem doomi Sénégal yi fi nekk ba mu xëy suba tey am ay diplôme yu ko mën a doon loo dara mu dugg ci nguur gi doon daanaka pratiquement bépp post bu ñuy yore bu baax jaar na ci ba doon premier ministre jóge fa doon tey jii njiitul réew ba muy doon opposant bu fekkoonte ne ni nii muy toppee di traqué maanaam euh, opposant yii noonu lañ ko defoon kan tey jii wax nañ ko ma nga ca kaso yi wala feneen yàlla na ci yàlla musal yéenewuñ ko ko tey jii tey jii alaaji baara lam ca liggéey gis nañ ko te pourtant affaire bii nga xam ne moo xew nii rek sëñ Muntaxa wax na ko wax na ci wax ju solo jotoon jotoon teg moom ñaan ko ne ko ne réew mi bu mu tàkk ci say loxo ne ko ne réew mi bu mu tàkk ci say loxo moom itam mu jox ko assurance ne ko réew mi du tàkk samay loxo kon nag mi ngi ci yoonu tàkk say loxo nag boo teggul sa tànk réew démocratie daf ci am solo ndax bu démocratie amul rek yatkarasi mooy am jëlante yat di dóorante ay guerre de civile ak yu mel noonu boo gisee Sénégal yëpp amagu fi mooy Sénégal dañoo am nit ñi ñuy exprimer wu di wax seeni soxla dégg nga ci wàllu politique itam ku ne mën a accéder ci li ñëpp di jot bu ñu demee ba tëj bunt yëpp tey jii képp koo xam ne da ngay politique soo nee soo commencé am doole rek ñu jël euh, tegal lëg fiir jël sànni ci kaso bi kooku bu ñu ko bëggee taf nit ñëpp nag lu seen xel gàtt-gàtt dañuy mujj xam ne kon lii dafa am lu tax lu ko tax a jóg loolu nag lim ñuy jural mooy boo tëjee bunt yëpp nag manifestation yi nit ñi di ci mbedd bi ñu leen di gis dañ leen a permettre ñuy manifester buñ demee ba di leen ko aaye lu tëb ñu aaye leen ko xam nga lu ñuy defar làqote def loo xam ne nag la ca mën a juddee ba la am xel mën ngaa tëj lépp ba mu des ko nit nag boo ko tëjee ci côté yëpp na la wóor ne xelam moom mu tëjoo ko te xelam moom nga xam ne tëjoo ko nag te lay sukkandiku di xalaat xalaat yoo xam ne mën naa doon musiba cim réew te nii ma gisee réew mi di doxee buñ ko continuer da ngay fi gis lu kenn musta gis yàlla nañ ci yàlla bañuy àggale nag kon nag euh, njiitu réew mi Macky Sall président Macky Sall maa ngi lay ñaan ni ki ab sénégalais dëkk ci réew mi nga teg loxo li nga teg ci suuf lii waxuñu nag ne. maanaam yoon buñ bu mu def la mu war def yoon fii réew ba bañ xamee ne yoon amutu fi yàgg na waaye teewul loolu lépp malgré tout ça tamit yoon wërta jóge ci réew kon am nga pexem ñu mën a jaaree ba nga xam ne yëf yi dana woyof ñu génn ci ndax ñàkku leen pexe yooyu ni ngeen defee pexe ba lii am noonu ngeen defee pexe ba mën caa génn ñi ngi ñaan daal génn jéem cee génn réew mi ne ci jàmm man nag dama koy ñaan ni képp sénégalais dégg ko ñàkk solo nag waaye teewut ñu bokk ci réew mi te itam xam nañ suñ bopp bu ñu kenn xamutit xam nañ ne bu wér wér wér li ñuy wax bëgg réew mi ak yéene ko jàmm moo tax ñu koy wax réew mi bu ñu ci muytuwut fam ñu jëme kenn waxu ko waaw lii nit ñëpp seen xel yi jaaxle na nit ñëpp tiit nañ nit ñëpp ñàkk nañ pexe nañ delloo si réew mi ci jàmm nañ delloo si réew mi gis nga France gëlee ci deux mille deux mille deux mille euh, euh, nu ñu koy wax deux mille jamono yi fa si ju nekkee jug taxaw tem ci ci ci ci ci dem ci banlieue bi sonu nit ñi dañoo mujj nit ñi moom fa euh, gone ya ku jàng histoire boobu xam ko da nga xam taxawaay ya xale yi taxawoon te yooyu yëpp itam xale yi ak waa réew mi ñàkk nañu pexe entreprise yi tëj nañ kenn liggéeyatut ah nit ñi dañuy xëy toog seen kër yi mbas mi nekk fi période yi ñu toll dafa mel ne bu ay problème doon am itam ñu bañ ko bañ a nit ba période yi ñu du ko fi def loolu daal mooy yi nga xam ne bëggoon nañ ko wax di ñaan réew mi ñu delloosi ko ci calme bàyyi yii nu nekk yii ay caxari képp la te fam ñu jëme nag waxaguñ ko war wa rahmatulah